Je vous remercie, euh, chers collègues. La parole est à l'honorable député Cheikh Abdoumbake. Se prépare Mohamed Aïb Salim Dafé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre du euh, Développement industriel, petit moyen industriel, maa ngi lay nuyu. ministre du travail di nuyu ñi nga àndal ñëpp ci ci sa collaborateurs yi di ñëw di wax ni monsieur le ministre ku ne xam na ni ministre bu ñu la jox bu doxee Sénégal dox mi ngi aju ci ministère bi malheureusement nag yow mi ko jox mënoo ko doxal parce que tey boo xoolee rek ci li nga xam ne mooy seen programme bi ngeen yore ci plaga programme Sénégal émergent ci deuxième pilier bi ci ngeen def li nga xamante ne mooy développement culture pour doxal Sénégal mais malheureusement joxu leen ko priorité boo jëlee tey ci budget bi rek sama xarit bi sax dafa juum mais budget 7000 milliards ñu ngi leen jox 16 milliards lañ leen si jox 16 milliards. monsieur le ministre fukki at ak ñaari Macky Sall yi Touba sero amul benn acte ak benn programme bu sotti ci ministère bii ñu la yor teg nga ko pour Touba mën a génn si jafe-jafe yooyu nekk te ku ne xam nañ Touba amul géej. amul ay usine la ñuy def mooy jaay rek la ñuy def yoo xam ne programme fu depuis bi ñu fi nekkee deux mille 2017 ba fi may wax a yow chaque année ñu ngi dañ fa def nangam pôle bi fi lay toll ñu ngi si wutu financement yi ñu ngi si affaire suuf si ma léegi sero kon jàpp naa ni programme bi moom Touba boolewul leen ko si loolu nag moo lay wan ni la bu ngeen gisee waa Touba nanguwul leen a adhéré seen politique nanguwul leen a wateel mooy amul leen yéene bu rafet jëm ko si xale yi pour ñu jóge si jafe-jafe dund parce que tey Touba ñun suñu programme bi ñu yore 155 dañu woon bu ñu yàlla maye njëriñu 2024 dana def maanaam 4 pôles Touba benn bi nga xam ne moo jógee ne côté ak bi nga xam ne moo génn si côté Mbacké bu ko defee xale yi mën a maanaam capitaliser foofu pour mën a ñëw liggéey monsieur le ministre malheureusement amu leen xam-xam boobu pour mën ko defal aw fas boo ko yoree yafal ko ba mu reg wala daal ni teetu bi ñu la jox wax dëgg yàlla mënuloo ko yor bu ngeen gisee ñu baree bari mere Macky Sall sa classe gi bokk na si man 2010 maa ngi. may ànd ak yow 2010 2009 nga nekk sama xarit ma la daa dimbale tey jii may wax yi 2024 bis bi ñu joxoon maanaam 2023 bii bis bi la mujj joxaat ma gis maanaam. franc CFA yoo xam ne détournement la ci fonds Covid bi mais bëgg naa si ay leeral. parce que bi ñu si waxee man waxuma Cour des comptes moo wax moo ne ministère bi nga yore am na maanaam cent un milliard te loolu Moustapha Ba wax na ko yow mii nee nga loolu yaa ko def yaa ko def nga wax parce que li tax mooy ñi nga xam ñoo nekkoon ñi nga xam mooy fournisseurs yi daawuñu nangoo jëlee euh, sec espèce la nangoo jël. na ko man xam naa képp koo xam yaa ngi Sénégal xam nga ni interdit nañ fay espèce lan moo tax nga jël ko tey bu fekkoon réew mu normal la nekk. deux mille vingt quatre bii doo nekkaat ministre deux mille vingt trois waxi nopp dana waroon jàppatale si kaso parce que loolu moo ndax ku lekk xaalisu askan wi waruloo nekk ministre la république te yow yaa ngi mii xam nga li tax nga bañ a ànd ak Amadou Ba xam nga ko parce que Amadou Ba xam nga ne bu gagné réew mi leer na ni dana nga rendre compte parce que Amadou Ba tey jii. amul saxeen mbay ñu wax ko fa lu nekk te yaa ngi ne nangoo ko pare ne am beneen boo xamante ni xëy nit ñi xam nañ xamuñu ko te man xam naa ne candidat boobu noonu kon jàpp naan loolu moo lay wan la rek li am solo te am mooy nit ki la ngay nekk. ba léegi nii xam na li nga nekkoon Macky Sall tey loo am loo man loo mën a def Macky Sall moo ko yóbbi kon Macky Sall bu tànn seen candidat ak lu mu naqar naqari war ngaa peut-être adhéré si candidat boo nga xamante ni Amadou Ba mais malheureusement ka Ba nag candidat boo xamante ni amul amul sens parce que amul sens mooy bu fekkente ne ni tey mu ngi jàkkaarloo ku mel ni man jàkkaarloo ku mel ni Bassirou Diomaye yaakaar naa ne pour nga jàll si diggante oo dee ak Karim Wade ba Karim xam naa ne moom affaire bi dina gën a rax mais li am solo ñun am nañ programme bu baax ci li nga xam mooy développe ministère bi bu ñu yàlla mi ministère bi jéem a xool li nga xamante ñoo ñu sàcc àllu réew mi teg ci yoon ba pare jéem a ànd ak gor yu set yi ku si mel ni Moustapha mii nga xamante ni jikkoom rafet na ñëpp xam na ni liggéeykat la te mi ngi jaay la xaalisu réew mi si yoon kenn mosu ko épinglé waaye yow nag dañ la épinglé milliard sa vraiment jërë ngay jaw salaamaaleykum wa rahmatullah je vous Mes chers collègues, laissez les députés développer tranquillement. Si vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer comme vous voudrez. La parole est à l'honorable député Mohamed Aïb Salim Dafé. Se prépare, cher Sec. Merci, Président. maa ngi leen di nuyu Euh, di nuyu seen collaborateurs yi euh, di ñëw par rapport au projet de budget euh, du ministère du développement industriel et des di gis ni budget bi depuis deux mille vingt deux quand même am na une amélioration parce que mu ngi jóge ci onze milliards deux mille vingt quatre seize milliards sept cent environ donc gis nañ ni am na une amélioration mais gis nañ ni ba léegi bu ñu wax ne stratégie d'industrialisation deux mille vingt et un deux mille trente cinq gis nañ tamit philosophie bu ngeen développé mooy maanaam. attractif mais tamit xam nañ ni développement c'est vrai que dañuy compter ci investissement privé notamment l'investissement privé l'investissement privé nationale mais am na loo xam ne il faut que état impulser ko jël ay moyens daf ko ci ba ñu atteindre benn vitesse de croisière surtout suñu privé national ñu ñeme industrie bëriwuñ ñu si ëpp suñu neewul ci mbay mi ñoo ngi ci commerce bi dafa laaj ay capitaux donc il faut que état gën cee dugal loxo yokk budget d'investissement bi euh, beneen bi gis nañ ni ngeen ko euh, lu ñu wax désindustrialisation parce que si faiblesse su secteur secondaire nañ koy xoolee Sénégal suñ ko doon xool par rapport ak jamono yu njëkk yi dañu jàpp ni industrie yi en tout cas dañu wàññeeku parce que wax nga ko nee nga industrie entreprise parc industriel bi mais quatre-vingt-douze pour cent yi ay petite et moyenne industrie la donc industrie yu mag yi yooyu jàpp nañu yokkul lu bëri par rapport ak lu ñu fi xamoon leneen li mooy concentration industrie Dakar quatre-vingt-onze pour cent donc mu mel ni le reste du Sénégal à part trois ou quatre régions c'est un désert industriel industrie pratiquement dara amu fa leneen lu ñu ci mën a wax mooy ni jafe-jafe yi lu koy yokk tamit mooy yenn accord ñuy signé au niveau international muy organisation mondiale du commerce muy accord de partenariat économique nga xam ne day gën yombalal importation produits te day gën a gaañ suñu balance commerciale nga xam ne actuellement mën nañ ne déficit bi moo ngi toll ci deux mille milliards mu doon lu bëri wax nañu nag redéploiement industriel mais redéploiement industriel ba léegi loolu gisaguñu redéploiement industriel parce que su fekkee redéploiement industriel dangay ngay créer un pôle à Diamniadio parc industriel à jam jam ñaajo du redéploiement nañu gën a sore dugg dans les régions delluwaat Diourbel Ziguinchor Saint-Louis Sédhiou foofu yépp pour quand ñu mën a euh, avancer bëgg naa laaj tamit indice de performance de compétitivité industrielle Sénégal ñaata la buy ONUD di calculer chaque année fan nañ ci toll fu may jeexalee mooy par rapport ak le programme Agropole Sud gis nañ ni tàmbali ngeen ko dans la en Casamance région de Sédhiou ciblé ngeen ay filières yu mel ni ba mangue anacarde maïs c'est bien mais fan ngeen ci toll kañ lay pare kañ la ñuy xalaat am en tout cas production bi di démarrer également bëgg nañu laajte loo xam ne mooy observatoire national des de l'industrie parce que gis nañu chaque année ngeen def ci budget bi deux mille vingt deux daf ngeen ci cent quarante millions deux mille vingt trois deux cent quarante millions mille vingt quatre ngeen yokk dafaat ci deux cent quarante millions observatoire nationale de l'industrie nga xam ne c'est en tout cas initiative la pour faciliter l'accès aux données faciliter l'aide à la décision mais observatoire boobu soo demee ca site web ba en tout cas doxul bëgg nañu observatoire boobu fan nañ koy observer fan nañ ko mën a gisee pour am données su fekkee def nañ ci ay deux cent millions trois cent millions te doxul war nañ ci ut ay motuwaay. je vous remercie chers collègues la parole est à l'honorable député Cheikh Seck se prépare le président Mamadou Lamine Thiam. merci monsieur le président ñu lay nuyu bu baax di jox sa wàccuwaay monsieur le ministre de l'industrie ñoo ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre des finances et du budget di nuyu monsieur le ministre du travail chargé des institutions di nuyu le directeur général du budget di nuyu fonctionnaire yi nga àndal ñëpp